ne mooy soxor kale Ibrahima Ngom nekk seen diggante laaj ku ci nekk sifflé génn seen diggante ñoom ñaar léewtoo ba départ ci diggante soxor kale ak ki nga xam mooy Ane Seut doxalal ñu dem. waaw mu mel ni tey jii ñu ngi ci combat diggante vingt heures de plus diggante soxor kale Modou Anta lambe spécial ci diggante Laye Gothé Laye Pythagore ñu nekk fii ci salle course. ah mu mel ni ñu ngay lewtoo te laalante wuñu waaye seen loxo càmmoñ yaa ngay dalante diggante Soxor Clé ak Modou Anta lan xew waaye yaakaar naa ni lamb ji mën naa nekk benn song wala mënu koo doon Père Baba. Soxor Clé ngi topp ki nga xam ne Modou Anta Modou Anta Diop mel na ku ko ragal di arrière lan lay préparé fu mu nekk lan lay préparé soxor keleen ko gëdd Modou Anta di doxe ci fu mu nekk maa waaye mu koy xool est-ce que waaw soxor keleen day déclenché ñëw am déet waaye bu mu ko gëddee ki nga xam ne mooy Anta Diop dafa dafa taxaw fu mu nekk nii ñoom ñaar combat boo xam ne combat waaw kele soxor kele dóor na. waaye mu daan waaw mu daan da ragalul ku déedéet daa mel ni soxor kele ragalul ku déedéet ñoom ñaar ñu ku ndax fenel jira jaar faaw mu am il faut ñu fenel tey nag la ñu waxante woon Sadio lañ jëm kon fi ne nii bu ngeen duggul Samba Sadio rek gorewu leen Anta ak soxor kele kenn ku ci nekk lu mu nar ànd ak mbokkam xas-xas loo kenn ku nekk def abon presse woo say mbokk say mbokk ñaanal la say waajur ñaanal la say am di jàmm ñaanal la nga dikk ba biir stade bi mbokk yëpp taxaw kon yaakaar naa ne war ngeen dëggal seen bopp te lii ngeen def yéen a ci yoon wi ñu xool fu wane di mujjee ki bëtam. soxla kële day dem am potu ante day dem wax nga xool léegi soxora ngi bëgg a wàcc tuuti Modou Anta koy xool soxor ci tànk yi la jëm soxor kële ci tànk Modou Anta yi dem. lu mu fay fekk xaw ma ko. mel ni gëm naa ne bu dee doon lu ko neex. waaw eh. xalaat naa loolu moo doon day xeex. moo doon day xeex moo doon day man xam naa loolu. day xeex pour moo doon. waaw mais a a moo du lu mu bëgg moo du anta. moo du lu mu bëgg. Soxorkele moo du anta Soxorkele lan la bëgg. waaw lan la bëgg koy xool ci bët. Ah, dem ci tànk yi. mu mel li ma waxoon ni mu ngi daal di ah, ñëw tànk naa la seen parax parax yi duñ ko mujjee. non duñ ko bu loxo yi diis bu loxo yi diisee jàpp day yàgg waaw mu nekk il yenn saa mu dagg léewtoo bi parce que balancement day bara day yekk yar jàppante nañ waaye Modou Anta ñeme na ko Modou Anta ñeme na ko soxor kele Modou Anta daja ñoom ñaar soxor soxor soxor kele Modou Anta koy Modou Anta Modou daja nañ ko nee nañ déedéet nee nee nañ leen dellu si mel ni nee dem mooy li ma waxoon sànq mooy li ma waxoon sànq mooy li ma waxoon sànq mooy li ma waxoon sànq mooy li ma waxoon sànq rek mooy li ma waxoon sànq rek mooy li ma waxoon sànq rek. wallaay wallaay salaay. c'est pas vrai moom la waxoon. loo gis maa ma. père Babacar laa la waxoon. ñu ko ci kaw daaneel soxla.